Nous avons ngeen la euh, région Kédougou région Kolda la région de euh, gox yi nga électrification bi euh, gouvernement Sénégal depuis 2014 2016 a fait def ay pour que électrification soit une réalité mais également ñu améliorer la population Si bu regardez au niveau de la région de Kédougou réaliser nañu quand même ay dorsales électriques dorsale qui mel Kédougou dem mais également euh, Kédougou dem ba Salémata seen dorsal yoy dina tax ñu mëna a village yi ñu mëna accélérer sen électrification yi donc population yi c'est vrai que ñu ngi manifester ñu ngi joytu pour am courant mais gouvernement Sénégal ministère pétrole énergie ak euh ñu ngi continuer di wëyel sen projet di wëyel un programme pour que l'électrification et accès universel à l'électricité n'est une réalité surtout dans ces zones là Kédougou euh, Kafrine, mais également euh, Kolda taux d'électrification bi ñu 24% en 2012. Euh, effort ñu def à travers programme national d'urgence d'électrification ak programme national d'électrification yobbu nañu tay ci 60 Mais mais lolu doyul parce que ambition président de la république est moy d'ici 2025 Sénégalais yi fo mënta nek nga mëna jot ci courant lolu nak ñu ngi ci liggéey actuellement ñu ngi finaliser programme bu ñu tuddé programme d'urgence d'électrification rurale pour ñu accélérer électrification mais également partout yi nga fi nga xam euh, ay inégalités wala ay déséquilibres si noté ñu mun ko corriger pour que population yi mun a jot si ngeneel yi nekk si électricité